waaw auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah yéen mbokk yi safoo di seetaan seen site bi di Ndigal TV ñu ngeen nu di leen ziar di am eh, ci yéen lool di am kontaan ci yéen di wax ne waaw yéen góor woy leen di abonné ci site bi te di seetaan vidéo yi di ko partagé ndax am na jariñ ci nekk ci waxtaay bi di seen mbokk seen xarit Cheikh Omar Niass borom ndigal euh, tey nag ñu dikkaat ak yéen di continuer rek ci émission yi ñu doon def incha allah ta mooy di leen baaxee yenn secret yi nga xam ne yàlla defañ na ko ci faatixatul kitaab ak yi mu war a àndal te incha allah su ko nit ki jëfandikoo rek yàlla ci baaxam ak ci kàttanam ak ci barke faatixa mën na cee gis njëriñ tey nag vidéo bi ñun bëgg leen cee baaxee fatihatul kitab ba tey waaye ak li muy àndal su ngeen gisee lii xam ne lii nii jar la jar nag suñ ko waxee ku ne café surtout kafe gi nga xam ne moom la ñuy wax café Touba gis ngeen ne ñu bari dañ koy booleeg moom di ko def ci seen kafe yi ngir kafe gi gën a neex waaye du lu rek la man jar bari na njëriñ ndax jar fu mu toll nii bari na ay njëriñ yoo xam ne mu ngi ci jar euh, donte léeg-léeg mu yomb ci bëtu nit ñi wala nit ñi di ko gis te xam tamit njëriñ li lan la waaye borom bi subhaanahu wa taala mbooleem lu mu bind rek am na njariñ moo tax jar bi secret bu bare ngi ci te incha allah euh, dinañ leen wax naka lañ koy jëfandikoo ba mën cee gis secret yooyu su fekkente ne yow yàlla dafa dogal comme niñ la doon wax fële rek. sa yaram nekk yaram boo xam ne euh, dafa taq tilim nekk yaram boo xam ne mboolem lu borom di ut léeg-léeg day jafe pour mu am ko te dara waralu ko lu wàllum cet surtout cet ak suñ ko waxee nag mooy loo xam ne bët la bët bu aay wala làmmiñ dal ci sa kaw ba di yàq say mbir lu baree bari su boobaa mbokk demal nga uti jar jar na tolloog liibar wala genn waa liibar du sakkan lool maanaam lu xaw a bari bon bon na nga ko ut soo ko utee nga def ko ci laket moo gën soo amee leket bu mag xëy na li ñuy moo tax ñu jël leket bu ndaw bi waaye leket bu mag ngay ut soo ko amee moo gan soo ko amul tamit nga ut si wa cinq litres yi nga def ci ndox ba mu fees nga def ci ndox ba mu fees mbokk soo defee loolu ba pare su fekkente ne mën nga koo bind nga bind ko moo gën muy faatixatul kitaab yi nga bind ba'da kulli ayatin nasrun min allahi wa fathun qaribun nasrun min allahi wa fathun qaribun nasrun min allahi wa fathun qaribun juróom-ñaari yoon nga koy bind ba'da kulli ayatin ba faatixa bi jeex nga bind faatixa bi juróom-ñaar maanaam nasrun min allahi wa fathun qaribun juróom-ñaari yoon nga koy bind su faatixa bi jeexee nga bindaat ko beneen yoon ba mat juróom-ñaari yoon mbokk secret bu mag a ngi nii bu bari njariñ su fekkee bind nga ko ba mu jeex nga ut jar lii mooy jar jar mooy li ñuy def ci kafe yaakaar naa ñu bari xam nañ ko soo ko utee nga raxas saafara bi def ko ci siwo bi jël jar bi lu tolloog genn waa liibar wala liibar jar bi su nu mu bëree tamit du yàq dara nga jël jar bi def ko ci saafara si soo ko ci defee nga di ci sangu fukki fan ak benn ci barke alxuraan ci barke faatixatul kitaab su fekkente ne jafe-jafe ñàkk wala jafe-jafe tëju wala jafe-jafe bu mu mën a doon xataa walaw su fekkee yow rab sax daf la jàppoon di la yàqal tëj sa buntu wërsëg yi tëj sa xéewal gi ba nga xam ne borom bi subhaanahu wa xéewal yim la jagleel raba tax mënoo cee jot wala cat wala làmmiñ lu mu mën a doon mbokk soo ko defee comme niñ la ko waxee nii bind faatixa bi jël jar bi def ko ci sangu ci fukki fan ak benn incha allah bi xuwati ci kàttanu yàlla ak baaxam mboolem jafe-jafe boo nekkoon yàlla dana la ko dindil ci barke alquran ci barke faatixatul kitaab bi niñ la ko waxee noonu nga koy defee te incha allah soo ko defee noonu da gis résultat kon mbokk faatixa ngi noonu ba tey seen mbok Cheikh Omar moo leen ko doon defal waaye tey mu indi jar li nga xam ne lu bari njariñ la euh, ci doomu aadama waaw même jar bi kese kese kese soo ko jëlee def ko ci ndox si wo bu mag nga jël jar bi sotti ko ci moom kese nga di ko jëfandikoo rek dafa baax ci doomu aadama waxuma la nag nga boole ko faatixatul kitaab ak aaya boobu borom bi subhaanahu wa taala wax ne nasrun min allahi wa fathun qaribun incha allah ku ko def di nga am fatxu yàlla dañ la ubbi ubbi la say buntu wërsëg tëju boo mënoon a tëju ci àdduna yàlla borom bi subhanahu wa taala dana def ubbil la ko ci barke alxuraan ci barke fatiha kon seen mbokk Cheikh Omar Niass moo leen doon defalaat vidéo boobu tey nag ñu indi leen jar ak fatiha mu ngi noonu wasalaamaaleykum wa taala wa